Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 29 juillet 2024 ginnaaw nomination yi nga xamanteni amna am na yu ñu genn mu daldi di li nga xamanteni moy polémique ci Sénégal jëmele ko ci népotisme ginnaaw nomination ki nga xamanteni moy Sophie Zingasi, di dom ci ki nga xamanteni moy ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine di euh, Yacine Fall ak ki di Jacques Habib Si leul dal li nga xamanteni moy ministre bi di yaayam daldi na défendre bu baax baax ba nopi daldi def démentir lepp lo xamanteni influence la bo xamanteni Mom def nako ci pour ñu daal di nommé li nga xamanteni moy domam ci directeur général Momidi mii ministre de l'intégration africaine et Dal dina réagir ci polémique bi nga de ni dafa ci nomination bi nga de ni bu Sophie Nzingasi, qui ci agence de la promotion et de développement de l'artisanat ñi tuddee ko APDA ginnaaw loolu lépp na amul Benyon, bo boo influence qui dit président de la république Bassirou Diomaye Faye wala qui di premier ministre pour que ñu nommé qui di doomam lenn le la ci xam daal lépp loo xamante ni daal mi ngi ko amoon foofu ca Accra ginnaaw lu gi nga xamante mais lépp loo xamante na ci amul benyon liberté bo xamanteni war nañu mëna gëm que li nga xamanteni tay entretenir nako ak directeur ou RTS j'aimerais ko dal ci li nga xamanteni moy mooy Seneweb di koy relaté mon midi ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères yassine Fall xamal ne que daal di di Sophie Nzingasi, d'un dañ ko nommé fofu ci ministère de l'artisanat parce que les lo xamanteni moy compétence dal di nakoy am ci matière Bobu, ginnaw lol nak muy benn cas bo xamanteni di Mabouba Diagne di ministre de l'agriculture ak king nga xamanteni chef de la diplomatie Sénégal ñom dañ leen présenter ki nga xamante ni di Sophie Nzingasi, Sy ministère de tutelle bi ginnaw nak bu mu joggé ci li nga xamanteni moy ben échange si lañ ko nommé ginnaw lool dal amul dara lo xamanteni mom tay def ci influence lu mu mën a xamle daal mooy ji dina def résultat ndaxte ci lool lañ ko yar ci lañ ko mais amu ci influence donc ñi japp ni népotisme la mom mo dal di influencer président Diomaye ak premier ministre am dañu xamul kay président Diomaye ak ki nga xamanteni ni premier ministre kiko ki di Yassine Fall di Sophie Nzinga bi nga xamanteni nommé nañ ko directeur fofu nga xamanteni moy agence de la promotion de développement de l'artisanat, néna amu ci ben influence ACRA bobu la ko déggee ginnaaw bu mu amee compétence nak motax ñu fal ko fa. <laughs>